suñu ñaari bàyyi ñoo bokk sama rakk ji topp yi nga xam ne moo bokk ndey moom moog aas ñoo bokk benn bàyyi mu ñu ñu ko wax Mor Jaañ aas it nag ñoo jamonoonte ñoo daan bokk ci tëdd ci benn lal ba mu jóge fi dem ngaay man ma jóge fi dem jàng mu jóge fi dem ngaay hmm, kon aas fii léppam fii la hmm, wax dëgg bi ko yàlla dimbale it fàttewul fii xam naa doon na ci mi ngi ñuy jàppale mi ngi fiy jàppale daal ay nit Eh, bu ko defee comme da ngeen fee ñëw nag aas moom wax dëgg ñun lu baax rek lañ xam ci moom lu baax rek lañ xam ci moom ak jàppale eh, dafa mel ni nag it fii bu jàppale fii war naa jàppale fii bu ko jàppale wute war na leen a jàppale laaj ngeen ma ci benn mbokk bu ñu wax Alaaji As Diagne lu nu xam ci moom war ko seede ngir jëm suñu borom wa ma shahidna ila bima alimna As Diagne yàggan nañ koo xam ca ba nuy bokk di ay ndaw di tuut tànk 1970 la ñewoon Serif Lo fekk ma fa ci daaray mbokam bayam Serigne Boubou Diagne mok bayam ñoo bokk ben baay Yalla dogal ba mu ñëwee 1970 fekk nu fa amé won jikko ju rafet ndax jikko mom rek mo jar tëgg ci nit ndax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam jikko la ko yalla tag teg muy way naka la laa xuli xashiim jikko bu rafet nag moom lañ xamant ci mom wax naa la ni lanu xaman ci moom ba muy toll ji ay fukki at ak nangam booba moog ñam fa nekke ndoolan kenn yorul dara xanaa si téere alxuraan di jàng ak di gëstu waaye jikko bañ xaman ci moom ca yooyee jamono 1970 ak tey jii 2020 bi yàlla defee li ko soob ci moom jikko boobu mu amee woon ak jikko tey bii mu ne leen kenn xamewu ci lenn melowam amee woon it lu dul jëmm ji dolli ko njoolaay ak kawar yi dool weex loolu soppikuwul ci moom

doomi bàyyi Mbay Jaañ ca ngaay gu jëkk ga mi ngi ñëw ngaay en 1975 parce que ñun dañu naan maam moo am bulul kaang di fóore ku sant Jaañ ku mu doon boo demee ngaay Jaañ kàggu yaa nga fa boo demee ngaay Jaañ cosaan jawat daaru Xuddoos Tayba kàggu yaa nga fa woon boo demee fa ñu tuxu ci yoonu mbooro diggante daaru xudus ak mbooro ba tey kàggu Adjang depuis xale ñoo ànd ba ñu àndee xale ba nagan si nag ba bisub tey bi tàggoo Adjang ku baax la ku jub ku yiw la ku gore la ànd nañu mu for benn ñaari téeméer kese ay xale lañu mu jënd ci keesu miskitu ñaari kilo ak paquetu barga jënd ci kiloot jëndal ma ci kiloot dippi boobu ba nawet si ngorom kooku mun ma ngi ci moom mi ngi ci moom dem naa Dakar sarse bagage ci kaw oto bi ñu sàcc ci fanweeri gaz ak ñaar bañ ñëwee dafa ni Pape loolu yàlla dogal la mënoon naa mënoon naa mënoon nga caa ma dee ci comme dañoo jël suñu alal dañoo war a ndax li tax mu neexoon a àndal tey boo ko nee jeunes yaa ngi fii di def dara te aajowoo leen lii mu làmb poosam yaa ngi may dégg nawetaan bu ma saan a jub si bu fekkee 10 ASC fi nekk amul ASC ba nga xam ne si daawul làmb poosam. jox la finaali CNP yi daan am fii ci nawetaan yeeg affaire yëpp amul buñ ko ci daan jox daan ko pare ne aussi tous les manifestations yoo nga xam ne si yu mag la yu newoon ci dëkk bi ñu di ko ko jox mu di ca def ci kemtulaayu kàttan lu kenn deful comprendre la socialement muy ci diine ji yaa ngi may dégg muy ci diine ji taxawaay boobu aussi la taxawal Uhum. El Hadj ku ñuy wax góor gi El Hadj Mbaye mooy papaam mooy papaam waaw mooy papaam El Hadj Diagne fii nekkoon moom it dëgg daara la moo yoroon daara ji daara la fi yoroon ay addina bépp di ñëw di fi jàng fi daara ji dañuy jàng bu minuit bu njëlee dañuy continuer jàng bu asamaan loolu lañu ñu fii ñu bari dafay mokkale alxuraan daanaka ku mokkal alxuraan bala ngaa làqar ci di nga ñëw fii mu topp la sa àlluwa bu la nee baax na nga xam. fii ci tayba gii fasal de Taïba am na mag ñu fa nekk ñoo nga xam ne ñi seeni armeel usine bi dem na bëgg koo raase yàlla ganta te sëg ya fa nekk yëpp usine bi jaxase na ko ba te ko phosphate wala ñu tibb yax ya dem gas geneen kàmb ñu suul ko fa waaye phosphate de phosphate de Taïba gii ci même phosphate ñoo ma def Baye Mbaye Diagne papay Alla Diagne mi leen di wax kàng fóore comme arxuaan bañ ko fa dencee engins yi ñëw bu ko raser engins yi bu jub da ngay fay ba yàgg mu gént ñu wan ko góor gi didoh na yàlla def muy dox di dox di dox di dox ba ñëw fii ci armeel bi mu man de kiñ ma ni la ko gëstu di ba ñëw ci sa papa mu mu explique ko mu ko loolu la la de mu ko giñ ma wan ma gis ko ci leer nii ñu ni ma ma nga ceeg ginnaaw usine foofa ab armée la ma nga foofa ñu tabax ñu ñu miire ko foofa nee na muy topp àll bi di wër di wër ba ñëw yem ci gëstu ba ñëw ci sa papa bi mu ñëwee expliqué na ko bi ñu fiy nekk année bi ñuy tuxu si fii 88 booba booba góor gi ay at tey ba ñëw na fi di ko puus pour bëgg bëgg dëkk bi ndax intérêt bu mu fi gis góor gi ni leen toxoogul mu ni leen fii ak may dund dëkk bi du tëkk loolee loolee bañ ko defee tey ba ni day jéem waaye bu jéemee ba ñëw engagé da ngaay jaañ gas nañu ba wër ñu bu ñu toggee poussière beeg lépp ñu wër ñu te mënuñu ñoo toxu góor gi ni leen en tant que man fi ne toxu du am machine bu dugg suuf bi fay arrière boo arrière tàkk yaakaar naa ci jal yi nga seen nii ci garab yi moo nekkoon suñu kër kër maam góor boo amoon na benn mbedd bu dox ci diggante bi sama kër maam alaaji naar fa la nekkoon fa la bitig bi nekkoon en même temps fa la école bi nekkoon ñun fa lañ doon jànge boo boo boo génnee ci kanam am na fu ñu wax kër bàyyi Ousmane kër bàyyi Ousmane Diagne ñu ngi ci ginnaaw kër bàyyi Cheikh Bieye ñoom ñu ngi ci ginnaaw foofu kër bàyyi Massène ñëwee Kër Massar moo Kër Baye kii ñoo làng Kër Baye Moustapha ñu koy wax Kër Moustapha Ndonga ñoom ñoo làng boo yegee ca kaw amoon na montagne bi ne ca kaw Kër Baye Ousmane Kër Baye Kër Baye kii moo fa Kër Baye Mbaye Diagne Baye Mbaye Diagne fa nekk ñu koy xam ni mi amul xam na ñaan fi bi ma daal di teg dina waaw ba am sama soxla mu ñor ma xom ma rëccuku ñu ko fii dugg di góor gi ñaan fi ñaan dem ngay def commerce nekk ci taabal doo fo doo tux doo naan doo doxi bu jar sooy nga tëdd ngay jaay tàngal jaay passi di tegale di tegale ba yàgg nga romb taabal yi dem ci cantine di kër ci kër yi ba yàgg nga romb cantine bi dem ci magasin détail nga dem a dem a dem ba yàgg nga ubbi magasin bu mag di tàmbali guro ak détail koo fi gis nga di ko dégg ci ci réew mi informel boo fi gis ba Dakar ba maatam ba si Ziguinchor ba Tambacounda loolu la tàmbalee. alalam boolewu ko kenn lépp lu mu yor moom doomu aadama ñoo ko bokk. ngaa jaay ngéem a dëkk weeru tam xarit bu dee wu ne chaque année ba ma ko xam ko xamee xam bëri mu ñëw fii am dara yooyu ramal bu ne moo ameel nagu tam xarit may dégg xam nañu lii ma dëgg nit ku am jikko ju nit ku am jikko ju tey la nit ku jàmbure la nit ku mën a yërëme la sama doom dafa pare bay dem France aw ma dara penk laa jóge ba ma ñëw ko dama ne pap sa doom sama doom la si laa ko fekk wax ko mun ma fekk ma ngaay bi ma ñëwee ngaay la ca war lépp la ko def kon loolu nit ku baax moo koy def nit ku jub moo koy def ku gore moo koy def itam ku yëg mbokk te moom parent jubile dafa ni sa mbokk bu la gërëmee rek dëgg la ab jàmbur mën na laa gërëm sant mais sa mbokk bu la gërëmee dëgg la gis nañu it muy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi nga xam ni itam fii la ilimaan yi jaar bañ jox leen jàkke yi ñu ne ci bopp jàkke yi foofee la jaar bu dul woon sars yi mu yore ak liggéey bi ko yàlla teg ci koom kon it fii imaam yi nekk di jiite ci jàkke yi mën na nekk ci kanam jàkke yi di jiite mbooloo waaye liggéey bee la ko yàlla féetale waaye nag la imaam yi xam ba ne ci kanam jàkke bopp jàkke yi xam na ko maandu ga ñuy séentu ci moom am na maandu gu na tool mbaa sax gu ko depuis 2002 nous avons ànd ci politique man en 2000 le parti démocratique sénégalais gagné le gagné Sénégal as le parti socialiste a fait ma ci parti démocratique Sénégal ñu avons ci nous avons créé un euh, mouvement bu ñuy wax La moi di solidarité agissante autour du président Ablaye bon avant 2009 aussi. ay lu bari jaar na fi as ànd nañu moom ay audience yu bari ak suma benn frère suma xarit suma rakk di suma doomu ndey ñu koy wax sëriñ Mbacké parce que mënuma tudd Ass Diagne te tudduma Serigne Mbacké yeneen ñeneen parti sax dañoo jaaxle woon nun nan lañu daan def ba am quota boobu Ass Diagne gis fulla jooju ñu amoon nag ay fay ak fayda jooju man ak sama beneen copain Cheikh Fall Ngom mu def démarche pour nag ñëw ñu jàppale ko ci politique bi boobu lay door a dem PDS ñun ñu nekkoon AFP ba yàlla def As Diagne bi def démarche boobu xam suñu xarañte def démarche au niveau du quartier ak ku xamoon ni suñu kóolëre ba ni daal dañoo bëgg ñu ànd ak moom. ci ngay dajale ba ñëpp ni tudd ko woo ko ñu woo ko ci politique ñu kaay jox la mairie Ngaye mais Ngaye euh, Alla alxuraan la jàng te maire boko boo ko yoree dëgg dëgg yow nga jàng tubaab waaye yàlla jox na ko barke jox ko xel jox ko ñu ko dar ba mu yor maire yi ba zéro faute daaw laal xaalisu maire bi li mu daan dimbali xaalisu poosam daan dimbali di ko jox. ma ko nag mun ma de grand da nga may ci lenn su ma bàyyi nii dañ da ngay ba dimanche altine ma joxe man parce que il faut nga nattal sa bopp effectivement mu def noonu woote dimanche gagné ci ëllëg sa mu jox ko kenn bàyyil boppam ci coobare boppam ci moom ndax ko mos a dégg yi mais nag politique dañuy wax ni na ma na ma jigéen ñi baal ci terme bi lu ëmb day xëy wasin maanaam ku ci nekk sa appréciation ci politique parce que am nañoo ko As Diagne 2009 bi géré mairie bi yàlla dimbali ko aussi As demoon na ba ni benn instant pression bi métti trop. parce que as xamul politique donc nga daara la dinaa ñëw ci moom sax tuuti ci loolu quoi xamul woon politique politique boo xoolee sax ñun ñi mu àndaloon ñun ñoo ko ci gën a poussé ni ko demal demal mais bëggu ci woon dara parce que en 2009 quoi qu'on puisse dire ki nga xam ne moom tey moom la jël pouvoir bi ci moom kooku intellectuel la di doomu ngaay di cadre aussi waaw mën naa ko tudd parce que bu dee jàmm ak salaam rek laa koy tuddee mooy le professeur Oumar Sow di ko baax la aussi. tey it wax na loolu Macky président Macky Sall bi ñu tasee Thiès avant les élections municipales. ñoom ñi APR indi seen candidat moo moom wax ci digg Thiès Kajoor gépp ngi toog région bépp ngi toog tous les responsables mu ko président président Macky Sall mu ni ko naam mu ni ko maa ngi lay xamal ni la koo mën a teg ngaay buy wote bi ñëwee maa koy gañ mu ñëwaat foofu tuuti quoi mu ni ñi ma ameel bor ci ngaay ñëpp bal naa leen ko il paraît que ci li ma wax mooy vingt millions la woon en 2009 ma ni ko mais ah su tax ngay def loolu mu ni dama bañ ma dugg ci kër nit yoreel ma xaalis ma war koo campagne mu may darah. te xaalis du dara parce que nit ñi fi ne dama leen a soxla ndax alal ji fi lañ koy rek mu xotti 25 millions ci ay datam fi ci dëkk bi en 2009 loolu ak jaaj def na ko def 2014 mu ñëw moom bi mu ñëwee waktan. s'est réunis ñu waxtaan bon bi ñu def mu ni moom ah mënatul dem ñu ne ko ah su tax dem mu ni dëgg-dëgg mairie bii yor naa ko mais na ma nekkoon man di dimbali nit ñi moo ma gënal ma nekk ci mairie bi kon xool leen ku leen doy ngeen fal ko maire ma jàppale ko. wax loolu président Macky Sall président ni ko ah loolu de moom loolu jaaxal na ma waaye mënees ko woon a gëm effectivement dimanche yi mu gagné mu mu woote gagné gagné bu leer naññ kañ fa indi woon mu gagné ko loolu mooy affaire mais li ci dàq nag dafa am diine. parce que loolu lépp baax na waaye boo amul diine zéro la. ñu àndandoo 2014 Maguette Wade ñëw As Diagne fal ko en unanimité fal boo xam ne amul benn benn benn benn benn luñ ciy xool parce que bureau de vote yëpp ci ngaay presque moo ko gañe boo xoolee bureau de vote yi presque yëpp ci ngaay presque moo ko gañe amul benn bureau de vote bu ñu gañewul kon donc koo gañe boobu dafa leer te As Diagne aussi ah. am na benn bis ñuy mitin de ndeysaan du ma ko fàtte mukk maa ngi taxaw ci wetu kër As Diagne bi nekk Ngaye Diagne Serigne Mbacke daal di ni Serigne Mbacke daal di ni may leen As Diagne mu génn ci mitin bi dem këram ndax dafa am ay gan yu ko fay xaar est-ce que boobu nit ñi comprendre na ñoom lan moo tax As Diagne parce que il était souffrant mais rek il faut rek mu dugal ci loxoom def ci loxoom rek ba ndam li ñëw du ko bàyyi kenn parce que dafa war a par la grande porte. mooy li ko yàlla defal nii tey. ci ginnaaw tuuti ànd naa ak moom ci otoom ñu romb garage bi mu gis oto yépp gaare mun ma góor mu am mu xoola oto yi gaare rek mais seen borom xam nga nit ñuy sonn nañu voilà deux mois et ñu gaare fii demuñu dikkuñu ñii nag ñoo aajo woon dimbal waaw nan la ñuy def ba dimbali leen man ko ah xoolal rek mënuma ñii daal naa leen dimbali munuma léegi daal dinaa yëkkati deux millions yoo xam nañ seet nan la ñuy def ba séddale leen ma ni ko nan convoqué responsable garage bi boo ko defee ñoom ñu delloo leen bal bi ñu seet nan la ñuy organiser woo ba ba ba séddoo ko comprendre Nous avons les responsables président garage et responsable ni nous concerté les à leur façon dañu photocopier photocopié permis les 2 millions là samedi dimanche garage Nous devant tout le monde Nous avons nous actuellement j'ai 75 permis de conduire Nous avons millions mu ni ma ñii mënuma leen a neenal mais indi ma teg ko fii après buñ dee génnewaat fin du mois bi yaa ngi dégg ñu fexe ba luñ leen teel 75 permis yooyu mi ngi ak moom comprendre ma la yor na fi ay location ku ne dégg na ko dëkk bi presque comme ni ma la wax ba fii ñu suñu toog nii moo ko moom centre commercial baa ngi fi boo demee à l'angle boo demee au garage cantine yeeg foofu yëpp moo ko moom te am na ci cantine yëpp yaa ngi xam nga li ma da leen bàyyi may seen seen seen mensualité pour jàppale leen ko. mais les quatre-vingt et quelques booba Shell mooy jaay gaz directeur Shell bu yore gaz bi sama xarit moo woo ko mu ñëw ma yóbbu ko ci ma yóbbu ko directeur Shell bi. ñoo kii sama rakk la bu baax la day liggéey ngaay dama bëgg muy jaay gaz mun ma te ma koy lebal léegi 1000 gaz pour mu tàmbalee jaay 1000 gaz ci yooyu jamono booba ga bi complet bi lépp lépp mi ngi jar 2500 ak bouteille bi muy doog 2 millions 500 mille keroog la ko mos a gis. li ma ko gën a nawe ginnaaw yi ma leen wax yépp moo di woyof bi ak bañ yëkkati. mas ko fi wax benn waxtaan ni yàlla dafa bëggul kuy rëy rëylu ndax nee na rëy sama mbalaana kenn du ma ci fekk rëy mbalaana su borom la kenn du ko ci fekk àddina bii nu nekk li muy yaatu yaatu yaatu yaatu yàlla bind na lu góob muy aras aras ëppeen addina lu mat mille fois aras ci biir aras la course yu nekk course yu wasee kursi yu samaawaati wala kursi yi moo gën a yaatu asamaan yeeg suuf yi te kursi yu ci biir as mi ngi mel ni samay jaaru bi ci sama loxo bi. nga bu mën a mosaan ñëw am na ko ku ñuy wax alaaj naar moo fi a moo fi yor bitig di commerce di commerce bu mu nawet Moussa ñëw dañ ci daan lépp keesu miskit booba keesu miskitu ñaari kilo fanweeri dërëm lay jar dañ ko daan bokk man ak moom ñu lépp genn keesu miskit bu ko lebee teg ko ne bu ñu reere pare ku ne yoon ñi fanweeri miskit ñu yéeg o oh, jamono bu nii dama nii bu ko defee yooyu yëpp nag ay jaar-jaar la doomu adama nag ala kulli xaal moo am ay jaar-jaar. ci jikkoom bu rafet jamono ya muy nekk ci biir bitig bi dafa mas di liggéey ba yàgg mu seen benn waay boo xam ni xam naa paalin la ma nga yor jumtuwaayam ab saagam. di jël loo xam ni jënd ko te joxuñu ko ko xaw ma nag loolu luñ ko mën a tuddee ah séen na ko jàkkaarloo ak moom la muy def bu ko employé waaye gisee man nañoo dal ca kaw waaje te kon waajee suutaram dana xawee ko mu bañ leen ko yëgal ni cel mi ngi koy seen waaye mi ngi naan ndaxam waa ji dana yóbbu sama tiisi bi rek ndaxam yóbbu waa ji dana yóbbu sama tiisi ba waa ji ne ko dallam ci biir saag bi mun tax waa ji dem na rek te mu ngi jàkkaarloo ak moom ma ne eh, tegal néew ko tegal. newul gars yi am na ku jël benn tiis dana cel sutural ba mu dem ku sutural ab jaam fii ci àddina yàlla dana sutural yemal xayamati lakk bar loolu jikko bu rafet rek moo ko man ay mbuus la jël boobu mbuus a ngi soo xew mu jënd mbuus mbuus yi nga xamante ne ñoom moom moom la ñuy traité ci réew mi jënd saako saako saako mbuus ah, ay mbuus yu bari daf ko yëpp saako bi yàlla defee mu dugg ci rapide wàcc fàtte ko ci rapide bi te loolu rek la yoroon muy machine war na indi ngaay tàmbali wat ci liggéey nee na ma daal di taxaw rek xamatuma nu may def rek ma jàkkaarloo yàlla julli ñaar rakk rek toog ci yàgg na ay mille neuf cent soixante quinze soixante dix sept soixante seize boobu car rapide yëpp a nuroo te bari nee na ma bi ma julee ba pare toog na car rapide bu ñëw rek ma yër car rapide bu ñëw rek ma yër ba benn car rapide ñëw rek moo ko mu ni ma mun ma saak bi ngay seet ma ko waaw rek mu sàll la ak woo yàlla yàlla wuyu la parce que car ni mu bare woon nga xam ne boobu en 1977 1977 1977 ni car rapide bare woon Dakar yow tubaab nga fàtte sa machine ci car rapide dem dellu ci yàlla julli ñaan rakk ñaan yàlla yàlla daldi indi car bi kooku du lu yomb. gis nga ci mbas mi nii wallaayul azim koor la ne woon daanaka nit ñi ñoo ma daan yee te li ma gën a neex ci moom mooy xam nga nit ki bu la joxee boppam nit day ñëw xam nga li ma du yegg ci moom damay jël sama téléphone rek ma woo ko eh, jàmbaar mu naa man ko man day dama fi mu ne ñi ma yee ñoo ngi nii toog te ñoo ngi jóge barab sàngam mais ñii ñu ñu aajowoo ndimbal la parce que moomu ko wax moo ma ni góor a koo gis te mu aajowoo ndimbal wax ma ko. barke rasulullaahi laa lay wax comprend li ma kon loolu mu ni ma ah nan la demee nii ak nii ak nii ma ne ma ne ko ah ñoo ngi nii daal mu ni ma ñaata la man ko nangam la mun ma lii dina baax ñoom ma ne ko dina baax kay mu ma demal ci magasin bi ma demee ma jël ma seen aajo te du leen gis. ni Awa Diop portable yi ñu yor maa ngi Malick Dieng ñu ko portable yi ñu yor sax moo ñu ko jëndal xam nga ñun foofu dañ doon yëkkati ci politique. pour won ni mi ngi def ci ñun dal mais bi ñu génnee ba dugg ci oto bi mun ma Moussa quoi mun ma xam naa ni néew ma sax defuma ci yéen maa ngi def ci yéen waaye nag ah yenn saa yi moom wax ji da leen ko teg ci dëgg rek da leen ko teg ci dëgg rek ndeysaan mi ngi ñuy bëgg a weddi loolu wax foofu ca biir maanaam bu leen wax ni maa leen jëndal portable te jëndalu leen ko loolu aussi dama koy naw ci loolu parce que du bëgg ngay wax loo xam da nga yëkkati niveau maanaam da nga yëkkati sa daraja parce que benn bis daf ma nettali benn anecdote quoi bi mu nekk ci daara dama ko ne benn waa def ko ne as lan moo la gën a neex ci àdduna foo ko amee mbégte ban mbégte nga am macha allah as Diagne mënu ma wax ne il est milliardaire mais yàlla teref la ko teraanga macha allah yàlla na ko dund ak njabootam ba ay sëtam di ci lekk ak sët sëtaatam quoi. mu ni li ko gënoon a neex ci àdduna bi ñu nekkee ñoom donga daara nee na benn bis dañ daan yalwaan bu ñu yalwaanee dañuy def cotisation bu ñu cotiser nag ci guddi gi ne dañuy def meew lekk miskin neena mom bu amé mew ak miskit manam dang bo amé bo tégué ñett dërëm ñett dërëm la wax dé bo tégué ñett dërëm da ngay lek da ngay naan mew lek miskit mais neena bu tégué ñett dërëm neena mbékté bobu mu ci am mbékté bobu non du ko faté mukk ci aduna té pourtant il est millionnaire bu ko néxon fatlikou benen benen benen affaire mais ma ngay fatlikou lo xamni té dara ja la won simplicité bobu naw na ko ci as ndax fim nek ni defe nañ ni amul jot waaye mi ngi góor-góor ba ñeenti fan yooyu dana wàcce kaamil alxuraan sëriñ daar yi defuñu lu raw loolu mu dolli di ca defaat loo xam ni yonent bi moo ne na ngeen di dimb yàllaa di ci yu baax sallallahu alayhi wa sallam wax ni yàlla de mi ngi taxaw tem di dimbali jaamam li fekk jaam boobu mi ngi taxaw di dimbali moroomu jullitam ngir ngir ngir jëm yàlla إن لا كان في حون الحبد ما دام الحبد في أون أخي لول نك ميغي سي دينا لي جوخ رك بن بن بن بن مثال نخ بي مباس مي امي وانا ما تليفون في نيما دما بغن خم داري نياتا لا تول مانيكو شيخنا جوب موي خم ليمبي واي 30 موم دنا مات مو دم شيخو ليمل كوكو مو فك ما في جوخ ما فان ميري بون اك نيات ni man nañ ma ko séddaleel daara yi man ko nañ dem ci Cheikhu naa ndax mooy président daara yi nu ànd mu taal otoom dem mu wàññi 33 bon jox ko bon boobu bu la ko joxee dangay dem ca bitigu ubbi mel ni yow kuy jënd sa ceeb duñu xam ndax dañ laa may wala dañ laa jaay dañ laa duñ ci xam dara loola mooy sarax bu nëbbu sarax bu nëbbu nag day fay merum sunu borom

Seras loolu laa ko jàngal ndimbal ndimbal taxawu doomu aadama yi mu ngi ci waaye aw fanam dina gudd te wër gëm day yokk bu yóbboo nga yéene ko jàmm parce que yàlla def na ko di mu ko def te kenn mënu ci dara ku ko song di nga daanu ko mu song di yàlla daan loolu loolu yàlla def na ci moom tamponné na ko ba pare am na ngërëmal waajuram am na ngërëmal diine. kon yàlla lu mu dogal noona la nee na nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na dama yéemu ci mburu jullit ndax ci moom. ak nu mu mën a demee bu dee aw yiw lu neex lu rafet mu sant ci yàlla yiw la ko ci yàlla yi defal bu dee ab safaan mu metti mu tiit jàq jaaxale waaye mu sant yàlla delloo lépp suñu borom suñu borom yiw la ko ca defal kon yeneen yàlla defal yiw yeneen yàlla defal jàmm yeneen yàlla defal suutura yeneen yàlla musal musal njaboot yi ina ci kër yi ina ci àll bi yëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ah Diagne euh, ni ma ko mën a sant euh, mun ma ko wax sax ci doomu di ko dégg ndax li ma waxuma la man li ma defal ci lu baax waaye li ma teg sama bët mu def ko nit ci lu baax kooku yàlla rek moo ko mën a fay te yàlla moom xam nga yàlla moom jeexalul dara kenn ku nekk la nga def yàlla xam na ko gis na ko te na la ko fay wa an sax lil insaan illa ma yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla teral àdduna ak àllaaxira lépp lu mu bëgg yàlla na ko yàlla def du bëgg lu bon mukk